Ja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 salaatu a yool ba sun mbokk ya dawlu te nekk bi dalal gan ña neuf heures bi gannaaw tàkkusaan sëriñ bi dana ko liggéey bi bi sant soññe ñaan yewi mbooloo mi ñu ngi leen di fàttali jullit buy ñaanal aji faatu war a dimbale way wopp ay leeral 77 911 45 00 76 658 70 70 ñu ngi ko yëgal njabootu xaadim rasoul buntu këri Cheikh Mouhamadou Moustapha al seex yoon wi jullit